ñu dem ba réewum Russie ak kii di Alexei Navalny premier opposant boobee nga xamante ni euh, teg nañ ko loxo daan ko ñaari ati kaso yu mër tëdd ak nangam weer yóbbu ko ci benn prison bu ne fële ca euh, téeméeri kilomètre euh, à l'est de Moscou am téeméeri kilomètre ca penku Moscou moom kat moom daal buñ sukkandikoo ci avocat am ak ci soxnaam mi nga xam ne ne Alexei Navalny mii muy kat wér gu daal fi ne mi ngi leen bëgg a jaaxal am na jafe-jafe wér-gu-yaram bokk na ci itam euh, ginnaaw gi dafa daal am problème ndax euh, toog bu méttee métti ak euh, bankaan goo xam te ni léeg-léeg dañ leen koy bankaan ci oto prisonniers yi loolee kat moo ko yóbbee méttitu ginnaaw goo xamante ni daal mu ngi koy bëgg a jaaxal te it moom élection navel ni mi ci lu bind ba ab avocat am ko nee na moom mi kat maltraitance gu méttee métti daal lañ koy maltraité foofee bokk na sax lu mat juróom-ñetti yoon ñu koy garder dañ dikk fëgg ko yee ko ci guddi daal mënut a nelaw benn yoon ndax huit fois dinañ ko yee guddi gu nekk te it condition daal yam nekkee métti na lool da xam ni sax déclaré na ñoo ñi xam te ni ñoom ñooy garde pénitentiaire xaw a tawat dañ ko yóbbu ci benn médecin mu xool ko rek daal koy bindal ibuprofène te moom kat ay analyse yu am solo la war a amee ndax eh, dëgg-dëgg daal ginnaawam gi ne wàllum nerf sciatique bi ni mel lay ragal nag ne buñ ko seetaanee ëllëg mën naa dem ba ëppi loxo léegi nag loolee daal lañ xam ne Alexis Navalny mi ngi koy jàmbat moo ki awakaam ak soxnaam ñu ngi ciy woote wàllu àdduna bi yëpp ngir daal ñu jàppale leen ci seen euh, mbokk moom la nga xamante ni euh, kaso ban ko denc it te kaso bu méttee métti la ñaari am na sax benn boo xamante ni yàggul dara ay at ci ginnaaw rek dafa woon ñàkk bakkanam ba tax na ñu ngi woote wàllu àdduna bi yëpp ngir daal ñu jàppale leen ci Alexis Navalny moomee Vladimir Poutine mi bàyyi ko te nag teg gi yëpp kat li ñu jàpp mooy ku jëkk politique rek moom moo ko yóbbee